Abdou Aziz Mbodj njoon nee na nañu xoolaat bu baax ñan la ñuy jox réew mi Macky Sall a fait un travail remarquable bu amul woon peut-être expérience ak leadership bi mu am on s'en on s'en on s'en sortirait pas mu mel ni genre gaaral la quoi mooy ñi ñi ñëw di laaj ñi ñëw di laaj réew mi d'abord vous notez euh, Macky Sall et puis vous jugez son bilan. Moi, je pense que c'est un des gens qui ont peur de perdre. <laughs> tiit nañ ne xam nañ ne dañuy ñàkk nguur gi moom moo tax ñuy jaay Sénégalais yi discours bu mel noonu parce que ñeneen ñi sax dañuy dem boo boo bëgg a boo bëgg a indi sax théorie prolongation du mandat wala wala en tout cas je ne sais pas rapport élection am na fi yàggul dara sax ñu ngi bëgg a dem ci loolu nga xam ne te en tout cas c'est un discours kër un discours creux bu amul benn njëriñ yaakaar naa at 2012 fii lañ doon wax ne bu Macky Sall falo wala Abdoulaye bu demee ki koy remplacer du fay salaire xaw ma ñaata weer et et cetera yooyu amoon na fi. te terewul boobu léegi réew maa ngi fi réew ñu ngi koy doxal l' administration fonctionne donc les structures donc de l' état fonctionnent donc administration moo gën a dëgër alors donc Macky Sall c' est important donc on na on a un pays boo xamante tabax bi dëgër na oh tey nii mun nañ def mun nañ janoog lu bëri ci ay jafe-jafe moom moo tax li fi jaar ci crise li fi jaar ci jafe-jafe ñu surmonter ko ñu am en tout cas résilience pour kii donc pour surmonter ko loolu yaakaar na lu am solo discours boobu nañ ko bàyyi teg ko fële donc sénégalais yi nañ tànn ki nga xam moom moom moo leen jox espoir moo leen di garanti sénégalais yi dañoo ils ont de changement leneen lañ bëgg parce que aussi mënoo toog 12 ans en vérité même bu nekkee parce que aussi maanaam li ma léeg-léeg ma ne soxna si gën a gën a gën a ñaaw waaye jëkkër ji am na dépense waaw xanaa lu mu cuune cuune togg dana dina tëgg teg dara donc kenn mënu wax ni président Macky Sall du fi def dara wala defu fi dara loolu kenn xalaatu donc ce nihilisme là ne nous traverse pas li muy def ñu ngi koy gis maintenant on on le juge par rapport à son opportunité par rapport à son efficacité par rapport au vécu des Sénégalais tey nii Ndakaaru oui infrastructure routière ñu ngi fi terre mu ngi fi mais tey la Ndakaaru gën a jafee déplacé tey nii embouteillage yi tey la gën a fees ci biir Ndakaaru tey nii pour fe pour nga def nii jóge fii de nu mu fii nga jóge nii 18 heures jour de travail dem Parcelles Assainies donc c'est donc pour man ñàkk na ambition nga def BRT bi nga xamante ni Guédiawaye rek lay jógee dem dem dem Dakaaru donc pour man Dakar mérite mérite mieux donc Sénégal mérite mieux donc ñàkk ambition moom mooy nga tracé nu benn trente kilomètres de BRT naan ñu alors donc ñëw leen tàccu nga tracé ñu quinze kilomètres de terre def ci 1000 milliards donc naan ñu ñëw ñëw leen tàccu loolu manque d' ambition la wala ñun loolu mosuñu wax ne terre baaxul mais dafa ñu terre xamante ne ni eh, jam ñaajo la yem traversé Dakar Diamniadio c'est 36 kilomètres. dafa tuuti par rapport justement ak. ci li ñu bëgg ci réew mi. ci li ñu war a def ci réew mi loolu laa jàpp ne loolu manque d'ambition la donc tey ni discours bi discours bi nag bu ma ko suivre c'est un discours boo xamante ne de bilan boo xamante ne bilan positif dafa positif bilan def na bilan boo xam côté positif wane ne def naa fi bilan boo xam ne bàkku lii yëpp maa ko fi def donc ci sama jaar-jaar. beneen point bi mooy que donc tàggatoo na donc nee na wane naa bii mooy sama bilan mujj loolu c'est historique donc c'est le c'est la première fois dañ ko yoon yàgg a bind di ko implorer ah donc am un sénégalais un président sénégalais bu organiser des élections c'est monsieur Bokk parce que kenn mosu ko nangu moom au moins def na ko donc parce que même bu nekkee pression bi bëri na parce que bëggoon na def troisième mandat loolu mooy dëgg parce que kii ku fi waxoon ne président amul droit def troisième mandat dàq xam man nu mu tuddati waa ji dëkk Fatick donc fa la commencé. Sori Kaba Sori Kaba ba mu ne amul droit de troisième mandat la ko fi jëlee Moussa Diop nañ ko bàyyi. donc ba mu ne président amul def trois droit troisième mandat ci lañ ko jël Dakar dem dikk donc kenn mënuñu wax ni président Macky Sall bëggu doon def troisième mandat ñii ñëpp defar nañ fi troisième mandat bu mu jarleen lu ne donc loolu la loolu laa jàpp ne donc kon sénégalais ni ñu taxawee. donc te xamul nan la leen def moom moo ko mujj donc mu revenir ci li nga xam ne waxoon na ko bu njëkk ne donc duma def troisième mandat parce que bindoon na ko bind ci livre am donc da ko bind ci livre bi mu bind après après 2016 bu xëy na. mais est-ce que na ko. non non du question jar du question jaru ko non dañ ci ñëw. parce que xëy ñii ay militants yow yaa ci ñëw léegi. non xëy na ñii ay militants yu wax seen bëgg-bëgg la waaye moom ndey ji ndey ji bind ji waxu masu ko wax. loolu yow yaa ci ñëw léegi non dafa moom dafa bind ci livre am ne du ma def aw ma droit def troisième mandat. et c'est ce qu'il a fait le 3. donc mais après ci comportement politique li ñuy for ak li ñuy observer day wane ne donc tey donc am na sax benn ministre am boo xam ne taxaw ne du ko def du def du ko respecté nee na livre bi mu liiree livre bi daa xam ne du ko respecté waaw ministre la actuellement ni ci gouvernement. mais à la fin de la euh, fin kan moo yor kàddu bi maintenant maanaam loolu c'est pour justement revenir sur ma jàpp mooy que lii mu def nii bañ a nekk candidat c'est historique on le félicite parce que il fallait parce que day nekk benn démarcation bu am solo ci processus démocratique bu Sénégal yaakaar naa Abba mu ngi koy wax léegi maanaam tey fi ñu jëm doonuñu amati. bu élection yi comme ni mu ko ni mu ko diglee di élection yi jaarul yoon ñoo un nouveau président donc kenn dootu fi xalaatati peut-être defaat beneen ay yeneen ñaari mbay lépp ñaari mandat jàpp naa ne Sénégal day ancré wu définitivement donc ci eeru en tout cas ay peut-être benn mandat bu ko sénégalais buggee ñu defal la ñaari mandat mu jeex donc démocratie boo xamante ne xëy na ancrage dina gën a sax loolu am na solo waaye nag li may wax moom bilan bi bi mu jël positif parce que aspect yoo xamante ni dafa occulté et volontairement alors tey ni mënoo jël Sénégal ngay def bi ngay def un discours à la nation le 31 décembre 2023 waxoo en lu am solo ci jeunesse bi waxoo ci immigration clandestine nga xamante ne tey mu ngi mu ngi jeunesse bi nga xam ne amul benn histoire amul benn espoir ci politique économique bi nga xam ne ñoom dañu diggoon ne dañuy def transformation structurelle de notre économie transformation structurelle de notre économie moom mooy lan mooy que suñu économie dafa am nu mu ne nu mu mel ñoom bi ñu ñëw mooy que béykat yi ñoo ci ëpp secteur primaire ñiy napp ñi ñiy sàmm ak ñiy béy ñoo ci ëpp doole waaye li ñuy indi ci économie bi bariwul la contribution du secteur primaire maanaam l'essentiel des Sénégalais et mobiliser par au niveau du secteur primaire mais la contribution de ce secteur est est infime dafa tuuti nga ñëw secteur secondaire encore contribution bi tuuti nga ñëw lépp daanaka mu ngi ci secteur tertiaire loolu lan lañ ci def sax n'a pas changé les Sénégalais restent encore plus de 60 pour cent dans le secteur primaire et la contribution tourne autour de 2 pour cent loolu moom mooy la réalité le secteur agricole c'est c'est 3 pour cent de contribution dans dans le budget de l'État tu as un budget de 7000 milliards fi nga ne Sénégalais 60 pour cent ñoom ñoo fa nekk yow 3 pour cent ngay defoo ci sa budget moom mu ngi koy wax ne na 200 milliards loolu mooy moom moo tax boo demee tey mu ngi dëkk Mbaraxul boo demee seen dëkk am na ñoo amuñ cent mille francs te cent mille francs moom lañ nar dundee ci at bi yëpp amuñu amuñu cent kilogrammes de mil te cinq cent kilogrammes de mil boobu moom lañ moom lañ moom a dundee at mi yëpp c'est ça la réalité c'est ça la précarité justement de la structure économique du pays te l'action politique de ce gouvernement là muju musu ko mën a changer donc échec nañ total ba sur la transformation structure de l'économie du pays nee ils ont transformé la structure de l'économie ko defee il pour transformer la structure économique du pays da ngay dem ci programme li président Déthié Fall namm mooy que fex def def en sorte que la contribution du secteur primaire jógee ci 2 pour cent dem ci 20 pour cent mais aussi mobilise au moins au maximum près 30 pour cent mais aussi avec un secteur industriel dynamique boo xamante au moins dina assurer 50 mais loolu amuñu ko voilà voilà voilà le problème cest à échec la l' échec de la politique économique du président Macky Sall est lamentable une ak ak infrastructure d'accord université yi d'accord mais université même bu ñu ci duggee on a quelque chose à dire nous nous nous les universités nos universités sont essentiellement animées par des vacataires et des contractuels qui ont un statut précaire boo demee dans le secteur de l'éducation mu naan l'augmentation des salaires mais ba léegi nii la question des actes là depuis le ministère de Bampas bi mu nekkee ministère de la fonction publique des actes jusqu'à l'a pas fait le essentiel des anciens am ñu ñu dem retraite ba léegi ni seen mënuñu am intégration tey nii nga dem dans la structure dans le secteur de la santé c' est le secteur boo xamante ne le prince le principal donc le principe c' est la précarité de la da ngay dem bi un poste de santé entier amul amul amul amul agent de l' état c' est cela la réalité de de de de de de l' économie fait Sénégal yi amuñu koom amuñu xaalis te dëkk bi dafa gën a cher tey ni même bu ñu naa ay subvention mais le pays dafa gën a cher même bu nekkee ñoom def nañ yàggul dara ay conseil interministériel donc pour pour la réduire les prix tey nii prix dama jóge woon Dakar bi ñu ma falee maire parce que Bambey lay jàngale ma dellu si ne damay ut logement foo laal fu ma laal rek ci Ndakaaru maanaam au moins multiplier nañ ko par trois le logement c'est cela la réalité Merci donc beaucoup. le pays est devenu extrêmement cher alors que les gens n'ont pas de revenus donc on ne alors donc fii il faut mu am benn jàmbaar bu am volonté politique bu bu véritable xam fu mu jëm nga xamante ne nii dëkk bii suuf saa ngi ni am pagay am nañ ndox am nañ ay xale buñ jógee fii dem Espagne béy la ñuy def suñu suuf saa nga nele ci Saalum dañoo béy bay ko foofu ay mag ay ay ay Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass Barham ba El Hadj Barham Niass Kër Madiabé ba ñu théoriser que nañ jëlee ci réew mi benn traite parce que ndóol mi ci réew mi benn traite moo ko waral. donc kenn xaw depuis avant Baye depuis 1975 la fi jóge donc loolu moom la président Macky Sall tële moom ay ay nitam te loolu bu bu ñu ko defoon ci réew mi réew mi dina am fu fu fu fu mu jóge am fu mu jëm ba léegi nii ñun ci àll ba nit ñi béy béy la ñu béy béy la ñuy def li ëpp ci Sénégalais yi béy def li ëpp ci Sénégalais yi sàmm la ñuy def napp bi ministre baa ngi nii xale ci napp yi bay nañ gaal gi dem Espagne loolu moom mu mu mu ngi nii toog c'est cela en vérité donc la la structure économique elle est statique donc échec